Salut les amis de eSport TV, merci encore le gars de la confiance en nouveau lien. Merci de way des like, merci de way des abonner, merci également au gars des Bay des commentaires, mais surtout également Wellen du Bostil qui cloche de notification pour d'autres informations en exclusivité, mais également abonnez en masse pour agrandir la famille. Bok Sénégal est fait pour les mots 14 régions du Sénégal, diaspora, ñep ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk ci lal hôpital yi ak sécurité di feebar faatu wuñ leen benn yoon yàlla suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi erreur judiciaire gi ne luñu def yóbbu leen fa suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xaar leen àjjana fi daw si gars yi te yéexee ñu en avance ensemble dans la magie de eSport TV

xewal ak saawan baawan lay doon tamit ci li ci des mais ñu suñu fekk ko ay déwénati déwén suñu borom fajal ñu suñu aajo yëpp gars yi également tegg ñu suñu tolof tolof ñu wérul suñu borom fën fëgg seen bopp mais aussi gars yi ñi nga xam ne dañoo am leneen loo xam ne bëgg nañ ko seen xol te mu nekk lu gën si ñoom suñu borom defal leen ko Sénégal def suñu borom def fi jàmm def fi jàmm def dëgg yàgg fii si incha allahu rabbi bi laataa boobu na gars yi dañuy dem kaay yi nga xam ne donc record ci xëtam ne quel adversaire pour les Lionceaux parce que nga donc suñu gaynde yi dañuy dem ci li nga xam donc moy coupe du monde bi mais aussi ñan la wara war a wax ko le 21 bi tay ji lañ wara war a li nga xam donc tirage au sort bi ñu xam ban poule la nek mais également jëm ci li nga xam ne moy donc objectif ñi di wa Barça Barça moy dal dajale lu mat 100 millions parce que loolu nak pour ñu am ko il faut ñu jaay yenn joueurs yi wàññi yenn salaires yi pour mëna également espérer recruter ki nga xam donc Lionel Messi la Pulga et pour ça 100 millions mom gay minimum faut ñu dal di koy atteindre également ki nga xam moy mooy Mason Mount gannaaw bi nga xam dafa am ay kàddu yu ñagas yoo xam ne gars yi ñu ngi ko doon teg ci kawam donc mu daal di tëj li nga xam ci ay comptam li mooy que ne moom jàpp na ne rek loolu moom àndut ak football ba tax mu daal di ci fippu wane ci boppam bu baax a baax a baax insolite bi nag gars ñi nga xam ne xamuñu ko woon xam ngeen ne waa Real kii di euh, Neymar dem na fa def fa test 10 jours ba mu fa demee nag ancien directeur bu Real jamono jooju mooy wax ne extraordinaire mais jamono jooju nee waa këram dañoo bëggoon ay maam dañoo nekkoon Brésil ñu bëggoon fii fi nga xam mooy ci Espagne ñu jox leen fa benn kër ñu bañ directeur bi nee euh, a rëcc waa Real Madrid Neymar bi nga xam nag nee na moom objectif am mooy bu

déwén moom moo fay nekk Paris Saint-Germain nag ñii la ciblé bu ci amee kenn daal Galtier du toog déwén mais bu ci d'accord la kenn Galtier moo fas yéene entraîneur pendant ce temps le président de l'Atlético Madrid Nena na ki nga xam ne nag donc kii ngeen di gis ah, donc du Cholo di ki nga xam mooy Diego Simeone Nena na ñoom seen objectif mooy daal di koy prolonger le contrat am yokku salaire parce que actuellement nekk na ko xam mi ngi def loo xam am jéego du côté de l'Atlético de Madrid wax ci aussi ki nga donc ki ngeen gis nii ah donc di Joao Félix président bi neen Joao Félix aussi bu ñëwee dellu see ci nga xam mooy donc ci Atlético Madrid bu fekkee ne Chelsea levéwul option d'achat am dinañ ko intégrer incha allah rabi ci li nga xam mooy effectif parce que je le boo xam ne ah, dañ ko soxla donc munta ñàkk nag ay réeroo mook entraîneur entraîneur mais c'est un joueur cadre de l'équipe Paratici nag gars yi Paratici mooy donc le directeur sportif de euh, Tottenham Mon nak finalement gannaaw bi ñu ko qu'on a glouté nag lu toll ak ñaar ba ñetti at yoo le ne du exercer plus lu ci football ndax li nga xam un scandale yi du côté de la Juve Mon nak appel bi mu fond euh, dàq nañ ko donc on a un tax daan nay démissionné postom du côté de Tottenham ki nga xam également mooy Rodri Rodri nee pas su que jeexalee sama carrière gars yi dama bëgg a nekk directeur sportif xalaatuma nekk président ni quoi que ce soit mais directeur sportif dal la bëgg a nekk su ma jeexalee sama carrière incha allah rabi loolu daal mooy bëgg-bëgg ki nga xam ne mooy Rodri Foyt nag aussi nekk cible boo xam ne waa Barça notamment Xavi daf ko bëgg pour renforcer équipe am Foyt le défenseur donc de Villarreal nekk joueur boo xam ne fi ni Barcelone daal euh, teg na ci gëtam ne booy bi daal lañu bëgg ñoom renforcer seen euh, défense bi wax ci aussi ki nga xam ne nag Lamine Yamal Lamine Yamal nag ah gars Lamine Yamal gis ngeen ko mooy pépite bu euh, Barça moom nag dem tamit entraîné na ak li nga xam équipe première bu Barcelone nek boy bo xamné ah, donc il a la double nationalité espagnole et aussi il peut jouer pour le Maroc mais Espagne vous bëgguñu ko bàyyi ben yoon muy dem wax ci aussi gay rapidement ci li nga xamné moy donc lii di Bayern Munich Bayern Munich nak ñom gars actuellement xam ngeen ko polémique bi bëri na fa Thomas Tuchel tay def na conférence de presse wax na objectif né na perte nañ quart de finale bi éliminer nañ ko pal mais fi ni ne li dess moy joueur yi gën wone seen bopp ne ñu am gën a am li nga xam moy donc lii di Tay ak dal buñ il camp yi taxna aussi gars doon indi polémique di wax ci kaaw Sadio magnifique euh, Mané ah, Kaiser magnifique Mané di tout mal moy donc Salihamidzic ak ki xam mooy Oliver Kahn Oliver Kahn waxna len rumeur bi ñu wax ne dañ koy dakh ak yoy non amul ki nak di Salia wax waxna ci lutax ñu recruter Sadio Mané mais avant aussi gars yi fi mu ne ni gars yi ñu ngi naan ñaari choix la ñu war a def diggante Gnabry ak Sadio Mané kan moy dem mais aussi au delà de Sadio Mané Gnabry ki di Leroy Sané aussi bokku na ci ñi nga xamné dañuy dem mais Sadio Mané il va rester au Bayern parce que son contrat c'est en 2025 et encore une fois je persiste et je signe le Bayern compte sur lui maintenant li des ci saison moy déterminé performance Sadio Mané Alassane Salihamidzic nag neen lu tax ñu jënd Sadio Mané moy bañu ñu jënd Sadio Mané lutax tax jënd beneen neuf mooy parce que Sadio Ilimane c'est un joueur il est polyvalent il peut jouer sur l'aile mais également mon jouer à la pointe de l'attaque moo sur le wu ma jënd benn attaquant ah, jamono jooju aussi gis ñu attaquant boo xam pointe boo xam ne ah doy na suñu xel dal na suñu xel donc Sadio aujourd'hui on l'a recruté parce que c'est un joueur phare boo il peut jouer sur l'aile et aussi il peut dépanner sur la pointe mais ça veut pas dire que ne Sadio Mané lañ indi pour jouer pointe parce que am objectif wut benn attaquant de pointe mais dañoo jënd Sadio parce que valeur sur le boo xam ne gëm nañ ne am lu mu apporter lu bari bari bari ci équipe Bayern Munich donc la confiance de à Mané à Sadio demande est entière donc aujourd'hui l'objectif de Bayern c'est de conserver Hein, Sadio Mané gars wéy leen di like wéy leen di abonné bu leen fàtte aussi ba si lien boobu dem abonné ci Babou Show tey on va parler également de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal jaa